yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. mbokku taalibe yi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare di jiital ci nuyu bi ak siyaar bi ci barab bu tedd bi ci suñu sëriñ bu tedd bi nga xam ne moom moo fi nekk Maulana Cheikh Ahmadul Khadim ñaan yàlla suñu boroom dolli ay ngërëmam ak ay mayam di siyaare xalifaam bu tedd bi a Cheikh Mouhamadoul suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér ba li mu na ma liggéeyal diina ji lépp mu matal ko di siyaare daayiratu muxaddamatul xidma bi nga xam ni moo nekkal murid yëpp ci barab bu tedd bii di leen ñaanal suñu boroom gën leen sàmm gën leen a aar daayira daayiratu Muxaddamatul Xidma nag comme ni mu ko baaxoo ci weeru kër wi yëpp ci tàkkusaan gi ci heure bi mu ànd ak yéen ci benn waxtaan woo xam ni day soxal doomu aadama tey ji nag di bis bu tedd ñu indi leen aw waxtaan woo xam ni ñu ngi ko tudde al istihdaad lirrahil maanaam waajal faatu ki ñu koy defal nag di koo xam ni kenn du ko présenté ci barab bi mooy sëriñ Mouhamadou Dem sëriñ Mbàkke Mouhamad Dem di ku ñu miin ci barab bi di boroom xam-xam di doom ci sëñ mu Dem moom njaareem yaakaar naa ne kooku ñëpp xam nañ ko ci euh, lu mu liggéeyal yoon wi bokkoon ci mag ñi jàngal ay murit yu baree bari ci ay at yu baree bari di doom it ci soxna Faati Mbàkke moom sëriñ Afiya moom sëriñ Mor Anta Sali mi nga xam ne moom mooy waajuru suñu sang bu tedd bi Seexul Xadiim kon moom bu ñu leen waxee ay waajuram rek yaakaar naa ni bu toogee fii di waxtaan lu jëm ci diine kenn du laaj lu tax waaye it loolu loolu dong taxul ñu tànn ko waaye dafa jaar fi doomu soxna baaxoo jaar ci am njàng ak tarbiya moom nag mu ngi tàmbalee am njàngam ci sëriñ si mi nga xam ni ab jàngalekat la bu ñëpp bu ñëpp xam fa la jàngi alxuraan ba mokkal ko ginnaaw bi mu dellu njaareem ci waajuram tàmbalee fa njàngum xam-xamam ba jàng fa lu bëree bëri ci wàllu diineem ak téere yi nga xam ne baaxoo nañ ko jàng ci suñu côté yii nii suñu wàll wi ba ginnaaw bi àggalewaan na am njàngam noonu la ko continuer ba ci sëriñ Modou Bousso mi nga xam ne moo nekkoon imaamu Taïf jàng na ci moom xam-xam lu bëree bëri ginnaaw bi it mu continuer ab gëstoom ba yàlla suñu borom def muy boroom xam-xam boo xam ni ñëpp xam nañ ko ci dëkk bi waaye it mu continuer it ci loolu nga xam ne moom lañ ko jàngal moom la nàmpu musul def dara lu jàng ak jàngale moo tax mu yor daara ju mag fii ci Touba ci jannatul mahwa di fa jàngale alxuraan ak xam-xam kon moom yaakaar naa ni ku ñu ràññee la thème bi nga xam ne moom la euh, jox tey muy bind muy waajal dee muy thème bu am am solo boo xam ne jàpp naa ni nit lépp lu muy waajal mën naa bañ a agsi ba mu des dee nag dee boo ko waajee mu agsi boo ko waajee mu agsi kon yaakaar naa ni tomb la bu am solo na ñu koy fàttaliku ci bis bii nga xam ne mooy bisu fukk ak juróom ñaar ci weeru ramadaan mooy bis bi ñuy fàttaliku ahlu badrin am ñoo xam ne dañoo joxewoon seen bakkan ngir diina ji taxaw te barab jotaay yi ak weer yi jaamu yàlla yi lépp ci bis bi gañaalul bis bi moo ko moo ko moo ko waral moo ko sabab kon jàpp naa ne buñ koy waajal ci bis bi kenn du laaj lu tax man xam naa ne dañ koy jox kàddu gi di ko ñaanal tawféex bisimilah. rabbi auzu bika min hamasaati shayaatini wa auzu bika rabbi an yaxduruni allahuma anta rabbi laa ilaha illa ant xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waadika mastataatu wa auzu bika min charri ma sanaatu abuu laka bi nicmatika alaya wa abuu bi dambi faxfir lii fa innahu laa yaxfiru zunuba illa ant allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin salaatan tunajjina biha min jamici alahwaali wal aafaati wa taqdi lana biha jamic alxaajaati wa tutahiruna biha min jamici sayiaati wa tarfacuna biha cindaka acla aldarajaati wa tuballiguna biha aqsa algaayaati min jamici alxayraati fi lxayaati wa bacda almamaati asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi fi teew noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di jiital ji nuyu bi ak siyaar bi sunu sang sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des murit di ko ñaanal ci yàlla gudd fan ak wér waaye nu fàtte sunu yeneen sang yi ci dëkk bi fu nu fi man di nekk ñoo ngi leen di ñaanal ci sunu boroom mu leen ci leeru mag ñi di nuyu waa daaira muxadmatul xidma ñi nga xam ne ñoom ñoo waral sunu jataay bii di leen nuyu te di leen siyaare te di leen ndokkeel di ñaan ci yàlla mu mu taxawu leen ndax masha allahu li ñuy def ñépp lañ koy defal daayira la ci dawaa dawaayir yi am ci réew mi moom daayira Muxaddamatul Xidma daayira la ci dawaayir yi ndax taxawaayam yal na leen yàlla gën a dooleel ba seen liggéey gën a rafet gën a sax waaye di nuyu ñi fi teew ñépp ak ñi nga xam ne yàlla mën naa dogal ñu déglu ji sunuy wax noo ngi leen di nuyu te di leen siyaare tey ñaan ci yàlla mu boole nu nangul waaye di siyaare ñépp it ci jaamu yàlla gii nu nekk muy koor gi ñaan ci sunu borom mi nga xam ne moo na ko sant ñun bu nu koy def nin ko manee la ni leen koy defee waaye yàlla nañu ko yàlla mottali ba mu mel ni mu ko bëgge loolu lu yomb yàlla la yàlla na ko def di nuyu it ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun bokk ci waa daara yi dawaamul xidma di nu jàppale ci liggéey bi di dimbalante ak noonu ci luy gën a tasaare luy gën a leeral njànglem lislaam macha allah ñoo ngi leen di nuyu tey bég ci ñoom tey ñaan ci mboolem ñi nga xam ne ñoo nuy dégg walla ñu nuy dégg ëllëg nu ñaanal nu tawfeexi sunu borom mbokk yi dañu fee daje tey ngir waxtaane lu am solo loo xam ne ñépp maase nañ ci ne ku ne am nga ci bis boo xam ne dana la ñëwal da ko dund loo xam ne ku ne ci nun bi muy xàmmee ñim fekkoon ci jamono dañuy day jekki-jekki rek ñu ne ko diw diw nelaw na diw nelaw na rek lay dégg ñuy wàññiku di wàññiku di wàññiku ila masha allah moom ci boppam it noonu lay mujje day juddu nekk fi ba su soobee yàlla mu jekki-jekki daa di nelaw comme ñu jiitu woon kon ñu ngi waxtaane mbir moo xam ne sunu boroom ci boppam wax na yonent bi lim koy fonk fonk nee na ko innaka mayitun wa innahum mayituun innaka mayitun wa innahum mayituun yàlla nee na yonente bi yow mii danga faatu ji ñii fi nekk ñépp ñoom ñoom it danañu faatu ji kon mbokk yi loolu lañ bëgg waxtaane tey manes na ne bisub bisub laxas bi walla bisub faatu bi waaye manees na ne la ca topp lañuy waxtaane ndax faatu gi daanaka jërut waxtaane la jërut jërut waajal la gën a jara waajal mooy la ca topp kon dañuy waxtaane yowma raxiil wala dañuy waxtaan ma baada yowmi raxiil la ca topp euh, muy waxtaan woo xam ne nag buñ nee waajal dee waajal mbir mooy nga bàyyi ko xel mooy nga sóoraale ko nga bàyyi ko xel nga fo nga sóoraale ko mawtu nag muy dee mooy loo xam ne mooy mujj képp kuy dund mooy sa mujj ci kaw suuf mooy lii liy teqale diggante dund ak la topp ca dund ndax dee moom lu ñuy def jàll lu ñuy def mu jàll la waaye gannaaw dee am na lu ca topp am na geneen dund gu ca topp kon lii lii teqale diggante dund gu suufe gi ak dund ga ca topp moom lañ bëgg a waxtaane tey muy loo xam ne sunu boroom nee na kullu man alayha faadin kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika sul jalaali wal yàlla wax na ca alquran ne képp ku ne ci kaw suuf danga nga mas a faatu ji yàlla rekk moo fi des loola ma nga ca suuratu rahmaan laay ñaar juróom benn mbokk yi loolu bokkut ak kullu nafsin dhaaiqatul mawti bépp bakkan boo xam ne mas naa am ruugu gune ci biir muy noyyi bis dana ñëw ruugi génn ci yaram wi dem feneen fu fu soob yàlla mu denc ko fa kon dee mbir la moo xam ne luy dund danga ko mos du nit rek nit rab gàncax lépp luy dund bis dana ñëw mu dee waaye dee daal lu ci mën di xew mooy génn ruu gi ci yaramu jëmm ji loolu mooy dee muy lu mat a waajal nag waaye li muy mat mat a waajal la ca topp moo gën a mat a waajal la ca topp la ca topp muy lu tar nag muy lu metti muy lu tar muy lu mat a bàyyi xel euh, loo xam ne ku nekk dana ci jaar te kañ lay ñëw bokki loolu loolu rek kumpa gi ci nekk rek lu metti la te koo gis si ñun ñii ba muy judd ñam xàmmee woon ci ay mbokkam ak ci ay dëkkandoo dañuy rocc ko par kenn léeg mu laaj kenn ñu ne ko dem na gaañu na kon bis la boo xam ne ku ne ci ñun dana ko dund waaye xamoo kañ lay doon xamoo yitte yum lay fekk am nag am nag lu la ci war li la ci war mooy nga waajal ko nga sóoraale ko nga bàyyi ko xel waajal ko sóoraale ko bàyyi ko xel nit ki mbokk yi lu mu gudd gudd fan lu mu gudd gudd fan ak dundam ci dee lay mujj kon diggante dunduk suufe gi dunduk dun dun dunduk àdduna gi ak dund ga ca topp dee moo leen di taqale kon képp ko jaar fii rek bis dana ñëw nga jóge fii dem ci beneen dund yàlla nee na aynama takunu yudrikkum almawt walaw kuntum fi burujin mushayyada suratu nisa laay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett mbokk yi ki nga xam ne dafa nekk ab euh, ku dëkk ci mbedd yi nga xam ne amul fu mu fanaan moo ki nga xam ne ci ab pale lay tëdd ay garde wër ko fa mu nekk aaru lool ñoom ñaar ñooñu ki dëkk ci mbedd mi tumaranke ba amul fu mu dëkk moo ki dëkk ci pala bi ñoom la dee yemale ki am ay moyen ak ki ki ko amut ki wér ak ki wéradi ki am wërsëg am mbooloo ak ki ko amut ñoom la dee yemale bis bu bis ba jotee ba suñ boroom jox diggal malaaka mi jëli ruu yi malaaka day taxaw fa mu toog daa di xool asamaan daa di di xool suuf daa di séen ruu yi mu war a jëri tey ruu yi mel ni dañoo taal ay làmp jëmale ko muy muy dem ci ñoom kenn par kenn ku mu ku mu yegg daa di rocc sag ruu daa di yóbbu jox sun jox sun boroom mu teg ko fa ko soob mu teg ko fa ko soob loolu mbokk yi ki dëkk ci mbedd yi nga xam ne amul fu mu dëkk ak ki nga xam ne dañ koy garde mu nekk ci pale ñu di ko garde ñoo ci yem képp docteur biy faj xol cardiologue bi bu yàlla soobee bis bu ko yàlla soxlaa bu ko neexee mu teg ko feebaru xol boo xam ne docteur ba du ca man dara docteur bi ci boppam biy faj bi docteur bi nga xam ne nga xam ne ab cardiologue la bis bu faatu dikkee feebaru kër mën na ko rey kon li gën a jommal doomu aadama mooy dee li gën a jommal nit mbokk yi mooy dee ndax ki am dangay gis dangay gis ku am kattan ku am pexe ku am ay man-man ku ami xame ku am ay moyen lu xew ñu yëgal ko ko ñu jekki-jekki ne la moom kat wàcc na bu liggéey te boo ñëwee boo jëlee loxo boo wàccee loxo bi daanu loo jàpp boo wëlbatee mu mu rëcc ña nekkoon ak moom di dem ak dikk ñoo koy jël sang ko ba mu set ñu sang ko daal di koy julle daal di koy dugal ci suuf si kon mbokk yi loolu mënta ñàkk raglu dafa raglu dee dafa raglu waaye li muy raglu raglu kat ah kenn mënu koo rëcc yàlla mu ñu bind bind dee moo ne ku ne ku dund dana dee bis. Euh, léegi-léegi nit dana gàtt xel ba defee ne gone du dee walla ku ami moyen yaakaar na ni daal dee mooy ku wér ku wér daal du dee ku feebaray dee ku néew doole mooy dee ku ñàkk wala ku màggat déedéet dee waxtu la wuy jot fa isaa jaa ajaluhum laa yastaaxiruuna saatan wala yastaqdimuun yàlla nee na bu dee jotee bu dee jotee dara du ca yokk du ab seconde du ab tiers kenn mënta dee te sa dee jotut waaye kenn mënta amee mooy ba sa dee jot ay mooy téye la fi wala pexe yeneen yi nga dégg ñu koy muy xew ci suñ dund gi ñu koy nettali xañ na ay phénomène la yuñ mënta expliquer waaye yàlla ci boppam mu yor dund yor dee moo ñu xamal ne ku ne dana dee te ko sa dee jot dara mënulaa tee dee dara mënta fexe nga dee te sa dee jotut kon moom lu jommale la moom faatu lu jommale la boroom xam-xam yi nit yàlla yi mësuñoo deñ di ci wax di ci jàngale njàng yu njàng mu yaatu njàng mu am solo Seyduna Aliyu ibnu Abi Taalib di mbokk ci Seyduna Muhammad salawatullahi wa taslimaatu alayhi ñu xam ko ci xam-xam bu bare ba ndax Seydina Muhammad mi nga xam ne yàlla day na ko lu kenn xamut nee na bu bu xam-xam doon ab néeg man ma man lay doon Seydina Ali di bunt ba kon Seydina Ali am na cër ci xam-xam Seydina Ali lan la wax ci mbirum dee Seydina Ali nee na laa daara lil lil mar'i laa daara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa alladi kaana xabla al mawti yabniha loolu damay fàttali lu sëñ tubaa laaj bu sëñ tubaa laajoon aw mag sëñ tubaa daa ma sa ba yàgg noonu muy jàngale ci tombam yi ak ki waxam yu waxe wolofam yu tënk yooyu te leer sëñ tubaa mas na ne ndax xam ngeen luy bitti réew bitti réew ñu ne ko am ah, mbàkk bitti réew de xanaa mooy jóge sim réew dem meneen réew di fa wuti xam-xam wala alal nga xam ne da fay nekk ab diir daal di dellu fa nga dëkkoon loolu de lañ ci xam mu ne leen waa loolu di aw déggin la waaye taxu may wax li ma tax di wax mooy sun dund gii nu nekk nee na ñun ñu ngi ci biti réew Sëñ Tuubaa nee na ñun ñii nekkete biti réew lañ na te yëguñu ko ah kay li ci am solo mooy lim jubloo jàngale daa bëgg a jàngale ne ka ne ka dem Europe jóge fii ngir jàpp ne Europe moo ëpp am koom mu dem fa di wuti am koom bu fa demee bëgg a yam ak ña dëkk ci réew ma di sol la ñuy sol di lekk la ñuy lekk di dëkk fañ dëkk bañ a yóbbante si réewam dara bis buy ñibbi ña ko fatoon ba muy tukki ñoo koy fataat ndax du am kër du am dara waaye bu fekkente ne yow dem nga biti réew jàpp ne mankat fii dëkkuma fi sama réew laa jóge di wut si lu ma am nga wut néeg bu yemamaay boo xam ne doo ci fere lu bari di sol yére yoo xam ne doo ci du seer di lekk loo xam ne du seer waaye loo am lu nekk nga jël ci lu baree bari lu duun yób yóbbante ko sa réew ña ngi lay tabaxal kër ña ngi lay jëndale wota ña ngi lay ubbi ay magasin bis boo demee ba ñibbi soob la boo demee dutu jar ngay delluwaat danga nga fekk danga nga fekk kër gu baax guñ la tabaxal yaa doon yónnee danga nga fa fekk ay magasin yu ñu la ubbil jox ko say jarbaat ak say rak danga fekk ay woto yu bari ñu la jëndal jox ko ay nit ñu la koy dawalal mbokk yi gisal misaal mi nim nim misaal bitim réew nee nañ ñun ñi ngi ci bitim réew noonu la sëñ Tuubaa jàngale bitim réew déggal Seydina Ali nim misaale dee nee na laa daara lil mar'i ba'dal mawti yaskunuha illa alladi kaana xablal mawti yabniha nee na ku ne ci ñun kër ga muy dëkk fële ëllëg fii mu nekk la koy tabaxe kon ñun ñi ngi fii danoo war a liggéey di yónnee ñu ñuy tabaxali kër di nu ubbili ay magasin di nu jëndal ay wata di nu wutal ay billet bis bu ñu demee ëllëg nag fekk fa lu bare bari loo xam ne ñoo ko liggéey waaye boo fi nekkee di fo topp sa bakkan ak a caaxaan bu ëllëgee bor me doo fekk dara kon laa daara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa alladi kaana xabla al mawti yabniha karamallahu mu tekki ne fa in banaaha bi xayrin taaba maskanuhu wa in banaaha bi charrin xaaba baaniha nee na boo ko tabaxee tabax bu baax boo ñëwee fekk fu dëkkukaay bu baax waaye boo sàgganee boo ñëwee doo am foo dëkk wala dañ lay fat mbokk yi nit dem na Italie am fa fukki at wala ñaar fukki at ñëw mbokkam fat ko ndax na mu fa nekkee woon sëñ Tuubaa nee na nañ jàpp nañ jàppe suñu bopp ñu nekk bitti réew loolu rek lii rek mbokk yi buñ ci yemoon buñ ci yemoon sunu waxtaane de ak la ca topp dana nu jariñ buñ jàppee nañ ñun bitim réew lañ ne ñu war a fàggu aw yiw war a fàggu tuyaabo war a wut lu baax war a jaamu yàlla ba bu ëllëgee bu ñu demee sunu borom gërëm nu kontaan ci noonu ayna almuluku alladi kaanat musaltinatan xatta saqaaha bi kaasil mawti saaqiha sidna ali nee na ana ñu nu fi jiitu woon buur yi buur yi amoon ay moyen am alal am mbooloo anañu di ñi ngi dem par kenn ñu ngi dem par kenn ba nar a jeex sunu alal yi ñuy dajal dajale sax miraas lañ koy dajale am wàllu naa am wàllu naa li sawil miraasi najmauha wa duuru naa li xaraabi dahri nabniha sidna ali karamala wacc nee na sunu alal jii de miraas lañ koy dajaleel waaye sunu kër yi ràpp lañ koy tabaxal mu tekke nag ak waaraate ak waaraate kanan na ila dunya wa ma fiha fal mawtu la shakka yufniina wa yufniha bul jël sa lépp wékk ko ci àdduna ndax àdduna dana jeex ñun ñi fi nekk dana nu jeex ñun ñi fi nekk dana nu jeex eh, dunduk dunduk doomu aadama dunduk nit dafa def ay xaaj balaa dee ñëw dund ko jiitu dund daa nekk ay xaaj dunduk nit mi ngi ko tàmbalee ci biiru yaayam ci ci ruxumu ummihi nit ki dana def ñeen ñeenti weer te du am ak ruu malaaka mi doog a ñëw ci ndigalul suñu borom def ci ak ruu booba la tàmbali tudd nit lu jiitu loola boo yàq ëmb réyow nit waaye dana fa nekk ba war a génn bu génnee ñu di ko toppatoo ba màgg dana nekk ci kaw suuf ba am fukki at ak juróom-benn bu dee jigéen fukk ak juróom-ñett bu dee góor jaamu yàlla yi doo ko war kon geneen dund ñëwaat bu dund gu njëkk gi jàllee dund ju muy tàmbalee ci biiru yaayam juddu dem ba doon mag geneen dund tàmbaliwaat dund googu mooy dund gi nga xam ne moo gën a am solo ci dundum nit ndax muy góor muy jigéen bu àggee ci ati ñu togg ko jëf bu masooree sunu boroom day daadi joxe ndigal day daa di santaane ñu ubbil ko ñaari carnet carnet bi ñuy bind jëf ju baaxam ak carnet bu ñuy bind jëf ju bonam mbokk yi kii waajal dee bis boobu lay tàmbalee waajal boo masóoree bis bi nga doonee mag nga xam ne yaag sa ndey yaag sa bàyyi la lislaam yemale loo defee te ñu bind ko ci sa tur bis boobu nga war a tàmbali waajal de kon ñun ñii népp bu fekkee bàyyiwuñu woon loolu xel kon sànk nañ fan yu bari ci suñ gannaaw kon bis bi nga masooree bis bi nga nekkee àgg ci ati ñu togg la jëf ci nga war a tàmbali di waajal la ca gannaaw de ndax loo defati ñu bind ko ci sa tur diw doomi diw ak diw sa yoonu baay nekku ci sa yoonu yaay nekku ci yoonu keneen nekku ci si yow lañuy ñuy bind ci sa tur lañ koy bind waaye dund googu kañ lay jeex dund googu danga ci dem ba tële tële walla nga faatu diggante fi nit ki masoore ak fi muy tële walla mu faatu diggante boobu lépp lu mu fi def dañ koy bind ci lu baax ak ci lu bon mbokk yi kii waajal dee ak la ca gannaawam diggante boobu la war a sóoraale diggante boobu la war a bàyyi xel la ko jiitu ak li ci topp kenn du ko bind li jiitu ngay masóor kenn du la bindal jëf du tuyaaba du bàkkaar <coughs> waaye boo demee ba tële wala nga dee kenn dootu la bindal dala du tuyaaba du bàkkaar kon solo si dëgg-dëgg mi ngi nekk ci diggante fi nga masóor ak fi ngay faatoo wala nga tële waaye bu dund gu njëkk jàllee dund gi ngay nekk ci sa biir way jur ak dund gi ngay nekk ak ndaw ak dund gi nga xam ne ci ngay masoor ba kër a ngay tëli wala nga faatu am na nag geneen dund gu ne ci gu ca topp muy alxayaatul barsaqiya mbokk yi sun maam ya maam ya dëppi maam aadama ba léegi ñi faatu ñépp ñi nga xaarante ci benn barab barsaq barab la boo xam ne dañ fay xaarante du ak kër dañ fay xaarante ka fa njëkk ba ki ba kiñ suul léegi ña nga fay xaarante ñan la ñuy xaar ñun ñun la xaar ñun ñii dañ ñuy xaar ba ñun ñépp ñu jeex alxayaatul barsaqiya yàlla nag doog a woo woo yàlla nag doog a doog tëgg nag bis pénc doog koo woote ñépp ñëw ñu teg peesewukaayu jëf yi maanaam balance yi ñuy peese jëf yi jaam yi tàmbali peese jëf yi nag jëf yan la ñuy peese la nga doon def ñu di ko bind ci carnet yi la nga doon def ñu ko bind ci carnet yi ba nga masooree ba ke da ngay tële wala nga faatu yooyu la ñuy def ay ay jëf teg ko ci balance yi peese ko bu ñu jógee foofa nag bu ñu jógee foofa yi ñuy peesee jëf yi lañuy dem nag ci kër gu mu ga mbokk yi armeel yi ñu ngi ko naan kër gu mu ga armeel du kër gu mujj de armeel ak kër la gu ñuy jaar rek waaye du kër gu mujj ndax ruuga nit ki bu faatoo ruuga yàlla da koy denc fa ko soob yaram wa yi yi ëpp ci yaram yi suuf si da leen di lekk ndax ci suuf lañ jóge woon loolu defe naa leer na ñépp yàlla nee na ci suuf la bind kon ci suuf lañ jóge yaram bi ci suuf lay dellu waaye ruugi yàlla da koy jël teg ko fa ko soob ba kere mu ñuy àttee ku ci ne mu delloo la sax ruu ku ci nekk nag bu ñu àttee jëf ba noppi nag ku ne fa ngay dem nga dem fa am na ñaari ñaari anam nu yàllay attee yàlla dana atte nit ci maandoom mooy dalay jox li nga am bu sa jëf yu baax ëppee nga dem àjjana bu sa jëf yu mën ëppee wala yaasu billaahi nga dem fa ca ñaari kër doo nga am léegi-léegi yàlla sunu borom jalla jalaalu wa sakamaluhu dana yërëm nit dana safoo nit ba jéggal ko ay bàkkaaram soppil ko jëf yu baax nga xam ne jëf yu baax rekk lay am mbokk yi yàlla nañ bokk ci ñooña looloo jarañaan loolu mooy li jarañaan yàlla nanu yàlla boole ci ñi nuy àtte ñi muy àtte ci yërmandeem te bañ noo àtte ci maandoom ndax ku yàlla seetaan boo muy da danga rus eh gis nga bis boobu mooy bisu pay ba bis la boo xam ne koo xam ne danga nekkoon fii ci biti réew nekk fi sa bakkan boo demee suñ borom nee na am na am na ñoo xam dañuy dem bay ñaan yàlla lu tere woon yàlla def leen suuf def leen suuf ku ne xam na ne suuf kenn du ko laaj dara ndax ndax du ndax du kii maanaam du ku ñu bindal ay tuyaaba xam nga ne doomu aadama ki noppam bu demee bay ñaan cëy yàlla lu teewoon nga def ma suuf booba jaaxle dugg na booba jaaxle dugg na yàlla moo ñu ko nettali yowma yansuru lmaru maa qaddamat yadaahu wa yaquulu lkaafiru yaa laytani kuntu turaaba ak neexoon ma nekk suuf di tekki noppam dem bay ñaan nekk suuf booba day fekk day fekk lam fa fekk ci ay tuyaaba doyu ko pour dugal ko aljana kon mbokk yi daal dinañuy xam ci liñ jotagu na wax kon dee jër ta waajal dee du dee lañu war a waajal loo xam ne faw mu ñëw te amul waxtu amul heure amul bis amul age liir dana dee màggat mu mu am màggat dana de at mu nekk nit dee na ci feebar taxut a dee wir téewut am ay moyen téewut a dee pauvreté ñàkk taxut a gaaw a dee kon de waxtu la bis la te saa su jotee kenn mënta tee nga de kon lii ndax jar na waajal jërul waajal daanaka jërul sóoraale waaye nag waaye nag bu jaree bàyyi xel mooy bàyyi ko xel ne dana ñëw waaye li li jar a gën a waajal mooy la ca topp maa baadal mawti maa baadal mawti mbokk yi foofu la mbir ma nekk li topp ci de lañu war a waajal euh, boo demee ca muwaahibul xudduus cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu wa nafanaa bi barakaatihi téeréem boobu mu bind <clears throat> ci lu jëm ci tawxiid ma ngi koy wax metti gu metti gu dee metti ak jommale gum jommale sëñ Tuubaa nee na waalam bi ann al mawta yaa axi ashad min kulli amrin xablahu faxsha samat waxlam bi an mawta yaa axi ashad min kulli amrin xablahu faxsha samat sëñ Tubaa nee na dee feeg defa goo ko dajagoo lu metti nee na li jiitu dee lépp dee ko gën a metti waaye nag la ca gën a yéeme mooy la topp ca dee lu ñëw gën a tar sëñ Tubaa ko wax de nee na dee moo gën a metti li ko jiitu lépp waaye la ca topp lu ñëw gën a metti de wa kullu amrin baadahu minhu ashad aydan ala maa xa maa qaalahu ahlu rashad nee na dee moo gën a tar li ko jiitu lépp waaye la ca topp lu ñëw gën a tar eh, moom Cheikh Ahmadou Bamba ba tey mi ngi misaal bu ñu faatoo bañ denc ci sunu bàmmeel yi lañuy njëkk a def ca biir bàmmeel ba gannaaw buñ nu dencee ba ñanu denc def lañ lañ xam ci ñaan bay dem sëñ Tuubaa nee na yàlla day yebal ñaari malaaka yoo xam ne ñoom la yebal ñooy njëkk a seet si néew bi ci bàmmeelam ñu wax mun kër nakiir munkar ak nakiir sëñ Tuubaa ngi wax ñooñu nan lañ mel ak naka lañuy ñuy jëflante ak ki faatu wa munkarun wa munkarun maa nakiirin yatiyaan almayta baada mawtihi wa yasalaan an xaddi tawxiidin sawa a nuqbira baada ruuxi am lam yuqbara Sëñ nee na munkar ak nakiir buñ dencee néegu bay dem ci la ñëw ñoom ñaar di ko laaj mbokk li li ñoom li leen yàlla wax ñu laaj ko ki dee loola bokk na ca waajal de ak la ca topp an xet di taw tawxiidin maanaam ci maanaam ci taw tawxiitu nit ki lañ koy laaj fan la tegoon boroomam yàlla fi ñu ko war a teg mooy jàpp ne buur la buur la moo bind moo moom moo sañ moo bind moo moom moo sañ boo ko xamee ba noppi nag la ca rek mooy nga jóg nag lim lay sant nga di ko def lim lay tere nga di ko bàyyi te sax ca lim lay sant nga di ko def waaye lim lay tere nga koy bàyyi te sax ca loolu dongkat la mun kat ak yi di laaj laaj laaj ki faatu noo nekkee woon àdduna ñan ñooy sa boroom lan moo doxoon sa diggante ak sa boroom foo ko tegoon noo doon def ak ndigal yàlla yi noo doon def ak tere yàlla yi an xaddi tawxiidin waaye Cheikh Ahmadou Bamba melal nañu noonu ñaari malaaka yooyu mel ci ak raglu seenug raglu seenug raglu nee na yaxruju min famayhima kasharari inda muxaatabati masulil basar nee na bu ñuy wax ay ferñeent day génn ci seen gémmiñ xalaatal di wax ak kenn gémmiñam di sànni fer ay xal aw tàngoor woo xam ne cóolal loo xam ne dalay mën a lakk ñaari malaaka sëñ Tuubaa nee na ñaari malaaka yooyu nur wuñ menn mbindéef nur wuñ nit nur wuñ jinne nur wuñ sax malaaka laa yashbahaani ljinna laa wala malak ma shiddati dayqi wa shiddati alxalak nee na munkar ak nakiir ñi nga xam ne bu ñu faatoo bu nit faatoo bañ denc la ba won gann ba won la gannaaw ñoo lay njëkk a ñëwal di la laaj sa diggante ak sa borom nu mu demee woon sëñ Tuubaa nee na ñooña bu ñuy wax seen gimiñ day génn ay ferñeent nuruwuñ jinne nuruwuñu malaaka wa kullu xalqin xaaifin min zeyni xatta al du duuna may nii nee na mbindeef yépp leen ragal mbindeef yépp ñoo ragal mun munkar ak nakiir jinne yi dañ leen a ragal malaaka yi dañ leen a ragal kenn xamut lu ñuy nuru te ko faatu ku ne bu la dencee ba wan la gannaaw danañ ñëw dekkal la nga toog ñu am lu ñu lay laaj foofee nag la li ñu war a waajal nag foofee la tàmbale li ñu war a suuraale di ko teg suñ bis bu set di ko tëddaale di ko yeewuwaale laaj boobee fa la war a tàmbale wa kullu xalqin yastaidu minhuma wa minhuma aadana rabu amin sëñ Tuubaa na ñaar ñooñi munkar ak nakiir mbindee fi yàlla yépp dañ leen di musul yàlla na yàlla musul ci ñoom radiallahu taala anhu gis nga ne mu misaale bàmmeel lëndamaay ga ak xataay ga ak ñaar ña la fay fekk xadar jan yor ak ñakk gi ñàkk maslaa ak ni ñu mel ci ak ñàngaay noonu ñu mel népp bu fekkente ne nekke war ngi fii ci àdduna ni nga war a nekke bu ñëwee dañuy nooyal ak yow dañuy nooyal ak yow mbokk yi dee sax dee sax dana yomb ci ñenn ñi am na ñoo xam ne seen dee day sedd dee mii nga xam ne nee nañ moo gën a metti lépp te ñu lu ca topp gën a metti bu fekkente ne gëmoon nga sa borom te nekk fi ni ni nga fi war a nekk te bañ fay nekke ni dëppook sa bakkan sag dee day yomb mun kër ak nakkil bu ñëwee dañuy nooyal ak yow ndax yërmaane yàlla yow ngay ame loo dugg yërmaane yàlla da ciy dugg kon la na ca la na ca gannaaw dee la ñuy waajal kon waajaluñu dee ndax dee mënta ñàkk te kenn yorul sag dee yàlla nee na deeluy jot la bu ñëwee bu jotee nu mu la man di fekk ak foo mën a nekk bu fekkee même nekk nga fa foo xam ne waroo faa dee danga nga daal di am occasion pour dem fa nga war a dee léegi-léeg nit day nekk fii dund fi ay at nekkete màkk la war a dee bu at ma jotee rek at mooma dana aji màkk malaaka ma fekk ko fu def ko feneen foo war a dee bu waxtu dee jotee da nga am occasion pour dem fa nay Chine nay Japon nay Amérique fu mën a doon boo fa amul soxla sax ab occasion dana ñëw pour nga dem fa malaaka ma fekk la fa nga dee fa kon bis boobu moom maanaam bis la boo xam ne pexe da cee amut pexe amu ci li nit ki li nit ki yore ci yoxoom war koo saytu war cee def lu man war cee góor góorlu mooy la topp ca dee li tàmbalee ci li ñaari malaaka yooyu di laaj ndax lañ lay laaj la ngay tontu day fekk nga doon ko dunde bu fekkee yaa ngi doon dunde ni nga war a dunde bu ñu la laajee kuy sa borom nga da leen allah allah kuy sa borom nga ne leen allah ban diine nga ne leen nga ne leen di diine lislaam luñ la laaj rek tontu bi day ñëw day yomb bu ñu noppee daldi bind seen kayit daal dem bàyyi la fa ca saasa dañ la lay dañ lay daal di yaatalal sa bàmmeel sa bàmmeel day daal di nekk ab sa ab ab salon mbokk yi am na ñoo xam ne bu ñu leen dencee ba ñu leen denc woon leen gannaaw ba munkar ñëw bañ laaj leen bu ñu jàllee ci laaj ca sa seenu seenu bàmmeel day daan nekku salon ab saal ab saal bu yaatu am ay lal am ay kanape am ay congélateur am lu ne sedd guy neex lool nga xam ne duñ yàkkamti dara waaye waaye ki nekkoon fii ci àdduna lu ko neex woon fi ba kanam bu ñooña laajee tontu ya du tontu yu baax bu ñuy dëdd rek bàmmeel bi tàmbali di ko naj di ko naj kon ak texe ak texee ci bàmmeel lay tàmbalee ki texe ak ki nar a di ci bàmmeelam la koy yéege ci lay tàmbalee nu ñuy waajale kon la ne ca gannaaw de xanaa ne ci ndigal yàlla yi waaye nag mbokk yi dëkke tuub dëkke tuub at tawbatu nasuh yàlla nee na <clears throat> wa tuubu ila llaahi jamian ayuha almuminuun laallakum tuflixuun suratu nuur laaye fanweer ak benn yàlla nee na ey yéen ñi gëm nangeen dellu ci yàlla ngeen tuub ndax lee ngeen texe bu ëllëgee tuub mooy lan tuub mooy fóotu ci ay bàkkaar mbokk yi sun sun sun sun mbubb yi ni muy soxlaa léegi rek ñu nemmeeku ko fóot ko defar ko ba mu baaxaat sunu yaram yi di ko soxla sunu néeg yi di ko soxla noonu la sun sun sun xol yi sun roo yi baatin yi di soxla ñu koy fóot lan moo koy fóot tuub dellu ci yàlla jégglu ko say bàkkaar yàlla mbokk yi ku yomba ku yomba defal la ku yomba séqal mbir la loo man mën a tooñ bis boo dogoo ci bàyyi tooñ rëccu tooñ ga fas yéene bañ caa dellu fekk ngay dund yàlla jéggal la wàllam bu fekkee keneen am na ci ay xaq muy ay almasalim muy masalim yi nga génne ko jox ko seeni borom moo xam muy tooñaa ngay alal wala muy tooñaa ngay der lu bàkkaar rëy rëy yàlla mën na ko jéggal ka ko sob waaye nag na fekk kooka tuub ko tuub gu sell buddi ko ca saasa rëccu def nga dogu ci bañ caa dellu bu amee ay tooñaa nga mu jox ko seeni borom kon lii lu ñu war a dëkke la dañ ko war a dëkke sun mbubb yi mbokk yi dañ koy fóot ak a fóotaat sunu yaram yi dañuy sangoo ko sanguwaat sun barab yi nekk dañ koy fomp di ko fobeere sun baatin yi sunu roo yi sunu xol yi soxla na loolu moom nag ndox ak eau de Javel yooyu du ko fóot moom tuub moo koy fóot tuub tuub gu sell ak tawbatun nasuh euh, yàlla wax na ci suurtu tahrim laay juróom-ñett yaa ayyuha alladina amanu tuubu ila llahi tawbatan nasuha ay yéen ñi gëm dellu leen ci seen boroom tuub seen ñaawteef fii te tuub gën a nekk tuub gu sell tuub gu sell mooy gi ma waxoon léegi da ngay bud da nga ciy budd ku ca saasa bu fekkee loo doon def la da ngay rëccu def ga da ngay dogo ci bañ caa dellu waaye bu ca ne amee ay xaq ay xaq danga ko koy delloo muy masaalim bi lu bàkkaar rëy rëy lii lii mën na la cee génne bàkkaar nag mbokk yi ci li gën a mën a yàq ak dund ci la bokk day alag nit day alag nit day tax yàlla jéppi la moom bàkkaar day tax yàlla jéppi la day tax sa dund sànku day tax bu ëllëgee bu ñu la suulee ba wan la gannaaw bu ñu la laajee doo xam looy tontu nga nekk fay xiin xiini kon bàkkaar li mat a sóoraale mat mat a bàyyi xel mooy bàkkaar hmm? te te néewaana bu ci nit muccee nit néewaana bu muccee ci bàkkaar mbokk yi julli jot sax ngay yeggale la nga doon def day jur bàkkaar julli jot ngay yeggale la nga doon def ak lu loola mën a doon dey jur bàkkaar sëñ Tuubaa nee na wan mi azima zambi lil muwaxiri waqta salaatihi bila usrin duri ki julli jot muy yeggale lam nekkoon ak lu loola mën a doon ne ko toggoo nga bàkkaar bu rëy kon mbokk yi bàkkaar mën naa wuute mën naa wuute waaye daanaka nit mënu caa mucc nit mënu caa mucc yonte yàlla yuusuf alayhi ab yonente la bu am cër hmm? ba kam nekkaloon ca kaso ba di génn mu ne ko waxal buur bi ne ko euh, euh, am na ko fa nekk wax ne ñoo fa duggandoo woon maanaam ma ngay fàttali buur ba boppam loolu yàlla da ko ci mere kon bàkkaar la diggante bi yàlla diggante bi xel mi génn ci ne sunu borom moo ko fi dugal moo ko fi mën a génne xelam dem ci buuru àdduna bi rek am na ci bàkkaar ba yàlla yokk na yokk na pen ba mu fa doon def xanaa kon li ma wax ne bàkkaar jafe naa mucc lu jafe la am na nitu yàlla boo xam ne li tax yàlla wan ko gannaaw ab diir bu yàgg mooy dafa am doom ju ndaw joxoon da koo bëgg ba doom ji bu nekkee ci kawam julli jot du jóg du jóg julli ji da koy téye rek doom ji maanaam day day tëdd sax yeewu di ko di ko nemmeeku da koo bëgg yàlla xam ne kii bu màgg doom ji bu màggee li ma bëgg ci sama jaam bi dootuma ko am kon ndekete am sa doom bëgg ko mbëggeel gu ëpp wala am sa soxna mbëggeel bu ëpp sax ndekete yooyu sax bàkkaar la ci nitu yàlla ni bàkkaar ni yenn yi nekkee bàkkaar ci sans maas gi ni la yenn nit ñu màgg ñi di amee yeneen xeeti bàkkaar bàkkaar nag bàkkaar la rek ndax loo séq ak sa boroom lay doon maanaam noo ko gisee ak foo ko teg ak e, e, niig niigal goo niig niigal ci ay santaane kon bàkkaar lu gën a mën lu gën a mën a yàqu dund bàkkaar amul kon li ñu war di def mooy di bari lu ñuy tuub bokk na ci kiy waajal dee dëgg-dëgg kiy waajal la la na ca dee kiy waajal ëllëg daa war a bari lu muy tuub lu muy jéggulu yàlla waaye nag nay wattandi ko xàq ndax di fanaanee tooñ xëy di yendoo jéggul loolu waxuñu ko dañoo wax ne li ngay tuub dangaa war a rëccu def gi dogu ci bañ caa dellu fekk ngay dee loolu rëccu def ko nag doo ko defat kon tuub gu dëggu ki koy def day set day set ndax lam defoon ba bàkkaar bi taqal ko loolu dootu ko defal eh, kon bàkkaar a ngi noonu mucc ci lu jafe la bari nay xeet am na bàkkaarub amatu naasi am na bàkkaarub xaasatu naasi am na bàkkaar boo xam ne ama ñoo koy toggoo sama maas am na boo xam ne xaasa ñoo koy toggoo Cheikh Ahmad bàmba ci téeram boobu ñu wax Masaalikul Jinaan <clears throat> mag ñu fay jox nag ay ay pexe maanaam ay solution ay yoon pexe yoo xam ne boo ko toppee te saxal ko bis booy jóge ci dundug su gi di dem ca dundug barsax ga dund nga ñuy xaarante sa tuyaabu mën naa ëpp say say bàkkaar Sëñ Tuubaa nee na wal taalaman bi ann ilman wa amal xuma wasilata saadati ajal nee na di di di di di wut xam-xamu diine ba noppi di jaamu yàlla di ko jëfandikoo maanaam al ilmu wal amalu bihi wut xam-xam ba noppi di ko jëfe maanaam di jaamu yàlla tam nekk jaamu yàlla guñ teg ci xam-xam tam bañ a nekk jaamu yàlla guñ teg ci làmbatu ak toppandoo kooku jàmm yàlla tuyaaba ja du bari jàmm yàlla dañ koy tekki xam-xam bu wér te bañ ko tekki toppandoo ak làmbatu suñ Tuubaa nee ne xam-xam ki nga xam ne dafa wut dafa am xam-xam wala day jàmm yàlla jaamu yàlla gum tekki xam-xam kooku ne mi ngi ki yoonu texe ndax xam-xam ak jëfe ko nee na ñooy ñaari yoon yi nga xam ne ñooy yoon yi jëm ci texe bu ëllëgee mu tekkee ne wa saxihan bi siddiqi wal ixlaasi kilayhima tasfar bil ixtisaasi nee na na nga ca boole ak dëggu akuk sellal mbokk yi xam ngeen ne jikko yu yàlla tànnal yonente yi mi yi nga xam ne wóol nañ ko mu ko yónni ci ñun xam nga jikko yooyu ñett képp la dëggu ak doy ak jotal dëggu ak doy ak jotal ku dëggu du wax lu lu lu mu gëmut ku jotal du wàññi du yokk waaye ku doyit du sànk luñ ko dénk sidqu amaanatu tabliixu loolu mooy yonante li ñuy baax baax baax ñetti jikko yi donc lañu ëppale sidqu amaanatu tabliixu loolu moo leen wutale ak nit nit ñu ordinaire yi hmm? kon mu tekkee ni wa bitibaa'i sunnatil muxtaar yi sallaa wa sallama alayhi al kon mbokk yi boo gisee Cheikh Ahmadou Bamba diirub mu fiy nekk mbooloo mi nga xam ne ñooy mbooloom ràññeelu ci woon góor ak jigéen gone ak mag ñépp lay jàngal xam-xamu diine ñépp lay toq ci jaamu yàlla ñépp lay tamal tamal dundeelu lew loolu moo tax mu fonkoon yi daara ji ak jàkka ji ak tool yi daara ji ak jàkka ji ak tool yi mbokk yi daara ji jàng la ji dañ fiy jàng jàkka ji fi la ñuy jaamoo yàlla te jaamu yàlla ga ñuy def jàkk ji dara daa laaj xam-xam ngi koy jànge ci daara ji waaye tool yee fa la ñuy wute lu leew luñ mën a dunde kon mbokk yi jullit jullit war naa mënta ñàkk xam-xam bu wér boo xam ne moo koy jàngal jaamu yàlla yi muy def nga xam ne dana ko teg ci xam-xam jullit mënta ñàkk loolu hmm? waaye mënta ñàkk mécc mu lew moo xam ne da koy fàggoo waaye boo demee ba ci biir fàggu wiin wa da koy sellal da koy sellal lu am solo la mbokk yi xir du yokk ci wërsëg dara xir du yokk ci wërsëg dara boo demoon ca marché be ña njëkk a ubbi di fa di fa mujj tëj ëpp ñu fa wërsëg wërsëg mbir la moo xam ne ci biirub soxna yi ci biirub suñu waajur la ko suñu borom di dayale ku ne la nga war a am da nga ko am bala nga fay jóge waaye nag li nu war mooy nañ fexe ba wërsëg bi fàggu ñu lewal ko fàggu wi ñu lewal ko boo gisee nit yàlla yi ñett dañuy ñëw kii jox leen lii ñu def seen poos keneen ñëw jox leen ñu teg ko fii lan moo wuutale 1000 francs wi mu nangoo def poos ak 1000 francs wi muy teg fii xanaa mill francs du 1000 francs hmm? kon bu fekkee bëgg nga jàmm yàlla yomb la boo bëggee jàmm yàlla yomb la fexeel ba la ngay dunde na lew loolu bokk na ci waajal maa ba'dal mawti ñëpp maase na nit yàlla yëpp nañ ci ne junni bi bu fekkee benn dërëm a nga ci boo xam ne lewut day yàq junni bi lépp kon boo bëggee junni bi lew dangay fexe ba benn dërëm bu lewut bu mu ci dugg nit yàllay yi maase nañ ci ne wépp suux woo xam ne ci dërëm bu araam la jóge sawara moo ci gën a yey ñépp maase nañ ci ne koo xam ne day dundal lew jaamu yàlla du ko yomb du ca sawar tey yàlla du ko nangu kon mbokk yi ki bëgg a waajal ëllëgam ki bëgg a waajal ëllëgam la muy tàmbalee mooy na fexe ba li muy dunde na ko lewal mooy tax jaamu yàlla mu tuuti mu bari dana sell sunu borom dana ko nangu dana sell te li sell la yàlla di nangu kon sàkku xam-xam ba mën a teg sa xam-xam say jaamu yàlla ci xam-xam waaye ngay jaamu yàlla jaamu yàlla bu ànd ak yéene ju sell waaye nag nga dëppale ko ak sunna seydina muhammad salawaatullahi wa taslimaatu alayhi loolu la sëñ Tuubaa wax ne wa saxihan bi sidqi wal ixlaasi kilayhima tasfar bil ixtisaasi wa bi itibaaci sunnati lmuxtaari salla wa sallama alayhi lbaari jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell waaye nga teg ko ci xam-xam waaye nga dëppale ko ak sunna sayyidina muhammad salawaatullahi wa taslimaatu alayhi mu tekke ne wakum mulaasiman lima xat saqula alayka minhuma wa il kasala mbokk yi yàlla li nga koy defal danga kaa war a sawar yàlla wërisuta tàyyeel ci lim nu sant boo ci tàyyeelee rek danga bécc ngeen mbirum sunu borom da nga koo ñàkkee teggit waaye nag lépp li koy yombal jàppal ne li ñuy lekk dafa mel ni ab essence bi ñuy dugal ci moteuru woto bi mbokk yi essance bu ñu rax dara boo ko dugalee ci moteuru woto woto bi day daw di day daw di kii day daw di jañu chauffeur yi ñoo ma gën a ñoo ma a xam li may wax am ne xeetu essence boo xam ne ca gannaaw tóokër lañ koy jënde da nga yóbbu sa bidon dem ñu jaay la lu yomb lañ la koy jaay waaye boo ko defee sa woto boo taalee day def nii day daw bu yàggee def ci moto de moto bu yàqu benn dërëm bu lewut noonu lay yàq junni junni bi boo ci jëndee ak ganaar togg ko lekk ko noonu lay def ci sa deret doo sawar ci jaamu yàlla lu baax du la saf lenn lu jëm ci yàlla doo ko safoo ay caaxaan ak fo kon mbokk yi kiy waajal li topp ci dee kiy waajal ëllëg lim war a njëkk yittewoo mais fexe ba dugal ci biiram bi lu lewut fexe ba du du du def ci njabootam gi dërëm bu lewul mbokk yi dërëm bu lewa yi àgg na ci njaboot boo koy dundale duñu jub jub du leen yomb mukk dañuy dëng am na xeeti métier yoo xam ne du ko mën a leeral ndax wax ji day tasaaroo am na xeeti métier yoo xam ne boo ko seetee ña nga xam ne danoo yaroo foofa ñoom la yu bari di yomb lu ko waral ña leen doon yar ña leen yoroon dañuy buub rek buub duñ xàmmee li dagan ak li dëgënu am na saa yoo xam ne moom mu bari mu tudd dëgganut ndax laaj nit loo ko wërta laaj mu jox la ko nga dem jox ko sa soxna mu jënd ci jënd ci mu dugg ci togg jox seen waa bis booba kere ñooña lañu lekk ndax dagan na dëgganut am na xeeti métier yoo xam ne ñi koy liggéeyee bu fekkente ne li ngay laaj léwut wuroo ko laaj ka koy laaj te sañoo ko ko laaj waaye laaj nga ko ko da koo noggutu bu la ko joxee rek ak métier moo mën a moo mën a liggéey nag ndax fi mu ne dërëm bi lewee di moo moo gën a yomb a ndax ki koy def sa xam na ne lewul kon yooyu ki nga xam ne la muy dunde lewul mbokki jaamu yàlla du ko yomb ak njabootam duñ jub duñ jub jub du leen yomb ki nga xam ne baayam lu for rek jox ko lu for jox yaayam mu dem dugg ñëw jënd ñu lekk kooku jub du ko yomb ku bëgg sa njaboot jub dangay ngay wut lu leew di leen ko dundale jaamu yàlla yomb leen jub yomb leen saytaane du am ci ñoom benn yoon kon loolu lu am solo la <coughs> eh, waaye nag ku wax jaamu yàlla ak yaa ci aju wax dundal sunna Seydina Muhammad wax lu ci jaamu yàlla lu mu diis diis nga di ko nga di ko fonk da wax da wax nag sàkku xam-xam moo tax sëñ Tuubaa ne in taxtamil fi zamanin xalili mashaqatan li zeyni yaa xalili taslam wa taxwi baadahu tanauma dahran tawilan fi jinaani di sama nee na boo góorgóorloo sàkku xam-xam góorgóorlu ci jaamu yàlla ko àq akuk mooy yàlla fexe ba sa lëng sa wërsëg nga fàggu yu na di dagan la ca des lépp sunu borom moo ko moo méngoo day yomb jub dalay yomb jaamu yàlla dalay yomb da ngay bañ lu bon sa njaboot foofu la ci yoon woowu la ñuy jaar waaye nag safaan ba it mooy safaan ba rek safaan ba mooy safaan ba mbokk yi yitte yitte yitte dëgg-dëgg fi mu war a jëm mooy def ngay def sa xel ci dee firiwut na danga bëgg wut am pexe ci dee ndax dee kenn amu ci pexe waaye la ca topp la ca topp la dala ca laaj bala munkar ak nakir di laaj ak peese ba ñuy peese jëf yi loola la ñuy waajal fii ci àdduna julli yi ñu yàlla sant ak koor yee mbooleem jaamu yàlla yi ak jëf yu baax yépp foofa lañ ko loolu lañ ci jublu ku la gën a nangoo sonn ci jàmm yàlla yi nu yàlla sant ak yi nuy def ci coobarewu moo la gën a tege ci yoon moo la gën a bëgg lu baax te yàlla dong ngay wuti meetar mu wuti la fukki meetar gis nga yàlla li ma waxoon léegi ne yàlla ku neexee jëflanteel la yàlla boo nee nii meetar yàlla day def noonu fukki meetar gën laa jege xam nga léegi nga yegg ka nekk fee nga ne fii nga di ko wuti mu lay gën a jege boo defee mètre mu def fukki mètre nga def noonu mu def fukki mètre loolu dañ cee jublu ne jaamu yàlla yi nu yàlla sant jariñu ko dara buñ ko defee jëriñu ko dara buñ ko waay buñ ko bàyyee wàññiwu ko dara waaye ñun lay jëriñ ñun lay jëriñ wax jooju loolu lay tekki ki nga xam ne li koy defal jëriñu ko dara waaye dala ciy dig tuyaaba xam kooku baax na ah boo jullee ma jox la lii boo wooree ma jox la lii boo defee lim santaane lépp mu dig la ay tuyaabay tuyaabay tuyaaba dencal la ko te te loolu du ko jariñ dara boo ko bàyyi woon du ko jariñ dara moom lu jiitu mu bind doomu aadama la léppam yemboon moom suñu borom jàlla jëlaalu wanse kamalu ba noppi nag mu mu di ñu dig tuyaaba nag ba noppi ñi nga xam ne dañoo sàggan di def lu ko naqari yàlla nee na leen bis boo demee ba rëccu rek ma jéggal la li nga weesu woon te bu ma la jéggalee du ci yem de yàlla bu la jégg bu la boo boo tubee bàkkaar ba mu jéggal la ko dala koy soppil ay tuyaaba kon mbokk yi yàlla rekk a neex a séqal yàlla moo neex a séqal euh, kon war nañoo jóg war nañoo góor góoru ci jaamu yàlla yi bokk na ci njàngale mi Sëñ Tuubaa yi mu doon jàngale <coughs> yu am solo yooyu muy wax te gàtt li mat def li ak ak li mët def ak li ëpp def nee na li mata def mooy jàmm yàlla li mët def mooy moy yàlla li ëpp def mooy sànq waxtu xam nga lii boo ko waxee koo xam ne jàngul dara mu def ko yóbbal ba noppi tënku ci dana xàmmee li mat a def ak li mët def ak li ëpp a def bu ko xàmmee wut da koy bëgg a xam da koy bëgg a xam day daal gis ne lii kat mun mu ko ñàkk xam parce que war na bëgg na maa xam li mat a def ba di ko def bëgg na maa xam li ëpp a def kon looloo taxoon sëñ Tuubaa fonk jàng jàng yamale ci nag góor ak jigéen képp ku am fukki at ak juróom benn wala fukki juróom ñett boo déggoo wala jigéen jàppal ne loo defeti ci sa tur lañ koy bind lu baax loo def ci sa tur lu bon ci sa kon war nañoo jàngal nit ki bala moo yegg foofu mu xam li mat a def bala moo yegg ci ñu ko bindee li bu fekkee ki nga xam ne jàngut yittewoowut xam-xamu diine du tee bu jaamu yàlla bu ko jàmm yàlla waree dana ko def waaye ki jàngul nag kon bu dee jàmm yàlla te nu muy def toppandoo toppandoo day de daa gis ñuy julli muy julli gis ñuy woor muy woor loolu nag li ci sëriñ si wax nee nañ boroom xam-xam yi ëpp nee nañ ki nga xam ne day jàmm yàlla ci toppandoo am nañu ne yàlla du ko fay dara am nañu ko wax waaye am nañu ne ah danañ ko fay de waaye duñ ko fay lu tolloog lañ koy fay bu xamoon te loolu loolu ñëpp d'accord nañ ci waaw ñëpp d'accord nañ ci danaa koy faral di nettali war nañoo góorlu bu baax jéem a sàkku xam-xam Sëñ Tuubaa mësta maslaa maanaam ci teg sa jaamu yàlla ci toppandoo ak tañaxu mësu cee maslaa loolu moo tax fu mu am ñetti nit dana fa wut ñaari sëriñ yi sëriñ buy jàngal gone yi alxuraan sayxu tahfiis ak sëriñ buy jàngal mag ñi diine sayxu taalim maa ngi nettali li tax xam-xam am solo dafa mel ni làmp boo yor di ci niit dama ko feral nett lu bari benn daayre bu doon siyaara ji benn sëriñ bañ ñëwee dajanteeg ñu noddu ñoom ñu xaw a yéex a julli am kenn ci mbooloo mi koo xam ne bu waxtu xasee jot rek daal ne ñàkk jàmm ba daa mujj rocc ko dem julli ji ñëwaat toog bañ demee ba noppi nag di julli mu àndaat ak ñoom julliwaat ñi nga xam ne nag duñ bàyyi weer ci benn fan di ko laaj waaye bi nga xam ne da ngay julliwaat loo doon julli bi nga xamee ne bu ñu julli nga julliwaat ànd ak mbooloo mi lu tax ngay dem fee di julli ji waane rek waaye mbokk yi kooku xam ngi ne du du jaayil ñaari julli yooyu julli yépp julli gu ci ne jar na ko julli gu njëkk gi moo koy teree am bàkkaar ndax waxtu yu jot na te fi nekk julliwuñu julleeguñu te amul kàddu soññe ndax yorul kàddu mbooloo ma lam lam man rekk la def jóg dem julli ñëwaat julli googu moo koy teree am bàkkaar waaye julli gim julliwaat bi ñuy julli ànd ak mbooloo mi moo koy may ngëneelul mbooloo loolu ku jàngul mënu ko ku jàngul mënut loolu ku jàngul bu fa nekkoon danaa xóotu rek toog di xaar nit ñi buñ jullee mu julli buñ jullit mu bañ a julli kon xam-xam li tax mu baax day tax nga xam fooy teg sa tànk say jaamu yàlla day doon day sakkan tuyaaba ju day bari te yu bari yu nit yu nit di latoo mënees na ko booleeg jàng mbokk yi njàngum xam-xam mën nañ koo booleeg lu ne même marché ba du ñàkk am na fa ab ab dongab daara boo xam ne jàngoon na téere yi bu tàkk saane nay lal ñi jàngul ñëw mu leen di jàngal garaas ba chauffeur ba fa jàng nay def noona ah lekk nekk farata ak naan ak noyyi ngelaw li noonu la jàng xam-xamu diine bi nga di bii tax nga bii tax nga xam fooy teg sa tànk noonu la nekk farata noonu la nekk farata Sëñ Tuubaa mësta maslaa ci ñàkk a jàng wala ñàkk jaamu yàlla wala maanaam lépp lu jëm ci yi mosu cee masala mosu cee ànd ak kenn ku mas faral ba bañ xam ne far naa ak moom ku mas a safoo bañ xam ne safoo naa ak moom ku jub lay doon ku baax ku bëgg jaamu yàlla ku sawar ca jàkka ja te nag gannaaw ay murid lañ nag wax dëgg yàlla fu ñu toll di ko di di ko di ko puukarewoo war nañoo fexe nag ba li ñuy wuyoo ñu nuru ko li ñuy wuyoo war nañ koo nuru noonu la sëñ Tuubaa soññe ci xam-xam nag ndax jaamu yàlla gi mooy yi ñuy bindal di ñu ko di ñu ci di ci natt bu ëllëgee te jaamu yàlla yooyu bu fekkee tegu ko ci xam-xam duñ ko nangu wala tuyaaba ji ni mu war a toll duñ toll kon solo si dëgg mooy jàngi diine ba xam li ngay def foo koy teg moo tax sëñ Tuubaa ne fasaariu lil ilmi ajmaina li wajhi sil jalaali xaasidiina fasaariu lil ilmi ajmaina li wajhi sil jalaali xaasidina gaawantu leen acca jóg leen ngeen wuti xam-xamu diine te na yàlla rekk tax li wajhi sil jalaali li wajhi sil jalaali na ngeen ci jublu jëmm yàlla ji bul jàng ngir raw sag maas bul jàng ngir di waaraate déedéet jàngal ngir xam xam fooy teg sa tànk xam li ngay def noo koy defe dem na ba ne képp ku la tere jàng képp ku lay tàyyeloo ci xam-xam daa bëgg nga réer wa man nahaakumu an taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami id kullu man fi da samaani manaa min attaallumi fa innahu daa li bidaatin shaniatin isil amal in lam yakun bil ilmi shaabahu xalal radiallahu taala anhu sëñ tubaa nee na jàngi leen xam-xamu diine ak bépp xam-xam buy jariñ waajale ko seen ëllëg ndax boo jàngul ba noppi di jaamu yàlla mënul toppandoo ak tëñëx tëñëxi te ko la tere nga jàngi daa bëgg nga dund ci ak réer ndax nee na jëf ji sax bu fekkente nekk ka koy def jàngut nee na ak yàqu da ca yomb saabahu xalal jaamo yàlla gi nga xam ne jàngoo lu ñu koy defe lu ko yàq day yomb lu ko yàq day yomb euh, am na kenn ci mbokk yi koo xam ne ab sëy boo xam ne xam naa dafa nekkoon ci mbokki sëriñ bi ñaar ñi ñaar ñoo xam ne dañ leen a maye woon ci ci teewug sëñ bi xam naa dañoo bokk ci mbokk yi sëñ bi toog ab diir nag di laaj ndax diw ak diw moom fu ñu toll ñu ne ko ah, ñoom kat yàlla dafa weddi woon seen seen seen seen seen diggante aleykum salaam wa mu ne ndax euh, doom doom doom am na ca ñu ne ko waa am nañ doom ju jigéen de am nañ koo xam ne bu doon góor mat naa dal alxuraan mu ne bismillah bu doon góor mat naa dal ba mu dee jigéen da ngeen ko dul dal daal ne nañ ma ko indil nañ ma ko indil daal di daadi di yebal ñu indil ko ko mu dalal ko ci bopp mu nag boole ko ku ko jàngal jigéen jigéen ci jamono Sëñ Tuubaa avant 1927 jamono jii rek boo duggoon ci kër doomi soxna yi am na fa jigéen yoo xam ne daanaka feru ñu ijji kër doomi soxna yi suñ kër yi ñun ba léegi jàngal jigéen nañ ko war a fonk fonk guñ ko noonu ci jamonoy Sëñ Tuubaa nag la ne woon indi dem leen indi leen ma ko ba mu ko dal lay mu boole ko ak ku ko jàngal ba noppi teg kene teg kene am ko mën a wattu alxuraan nga sàggane ko ba ba mu bañ koo mokkal lu ko jar mul ci kaw suuf yàlla yàlla yàlla yàlla fay na ko ndax ci doomi soxna yi fi njëkk am ay doom yu jigéen yu mokkal alxuraan bind kaamil ci la bokk ci la bokk te loolu lu néewoon la léegi la bari léegi la léegi la kaamilu jigéen bari waaye kaamilu jigéen yombutoon te ji ñi ko njëkk am ci la bokk lu ko ko may farlu ak xam ne xam-xam ñépp a ko bokk kenn moomu ko ndax jaamu yàlla ñépp la war ku masóoru rek ñu daal di wàcc wàcc say carnet sa ñaari carnet carnet bi ñuy bind jëf yu baax yi ak bi ñuy bind jëf yu bon yi te mbokk yi ñooñu ñu ne yàlla boole ñu bind suñu jëf yi kenn mënu leen a kenn kenn kenn faale wu ñu ay garde corps wu ñu ay tata ñii bind say jëf bu lu buntu xat-xat booy dugg ñoo lay njëkk a dugg booy dugg duggaale leen foo foo tëju loo fa yàgg yàgg yàgg ñoom fay bokk nekk te loo def danañ ko bind kon nit du nit nit du wéet boo tëjuwoon ci néeg yow dong lu néew néew ñett a nga fa ñett yow ak ñaari malaaka yi loolu kuy sóoraale dee di bàyyi xel la ca gannaaw de war ngaa xam lool yi war ngaa xam yooyu <coughs> kon sëñ Tuubaa ko fonkoon xam-xam la te it noonu it la xam-xam toll ci diine lislaam ndax yonent bi yàlla njëkk a yónni nee nañ iqra la ko njëkk wax jàngil jàngil moom boo fekkee ne jàngut ba mu ko nee jàngu mu wax ko dëggam lu may jàng mën na ko jàngal ci sa turu borom iqra bismi rabbik kon mbokk yi jàng fonk nañ ko en naam waaye war nañ ko gun a fonk te it yëpp boole ci ñëpp jigéen ñii ñu beddi bañ leen cee boole ci njàng mi loolu teguñu ko fenn teguñu ko fenn ndax ñaari carnet yi nga am yow yow mag mi ñaari kar na yi nga am ñu ci bind sa jëf yu baax yooyu ñaari kan la sa rakk ju jigéen am loolu la sa mag ju jigéen am loolu la sa yaay am loolu la sa soxna am ñaari carnet sa soxna du def mukk jëf ñu koy bind ci say carnet yow déedéet doo def dara ñu koy bind ci carnet keneen sa carnet bopp lañ koy bind loolu jar naa xam de jar naa xam te it nit ki akub yaram responsabilité bi ci nekk pour ñu taxaw ko ndax mel ni mu war a mel ñekk jur ñoo ko ñoo ko njëkk ñoom ñoom la ko yàlla njëkk laaj waaye bu doonee mag danañ ko laaj la ca des ndax bu fekkee sa yaay nañ say waajur nañ war a taxawee taxawuñ ko pour yar la boo doonee mag war ngaa jóg li la mànk ci yar wàllu diine wàllu jàng nga mottali ko naka noonu soxna si nga xam dañ la ko indil la nga war a njëkk a toppatoo mooy ak njàngum diineem fu mu toll fu toll nañ koy laaje baayam noonu lañ la ko laaj yow muñ ko may loolu yaakaar naa ne boo koy wax ay ree lay def nit ñi waaw ay ree lay def nit ñi waaye ku xas nekk moo kàllaf rek ubbi nañ sa ñaari carnet yi bi ñuy def sa jëf yu baax ak bi ñuy def sa jëf yu bon te loo def nañ ko bind euh, sëñ Tuubaa nee na fal ilmu wal amalu jawharaani li xayray daarayni yejlubaani nee na xam-xam ak jëfe ko di sàkku xam-xam bu baax xam-xamu diine ak di ko jëfe nee na ñoom ñaari ñoom ñoom ñooy ñaari wurus yi gën a am solo ci àdduna is kullu aamilin bila ilmin yura fa saayuhu mislu habain nusira gis nga waxoon nañ fi léegi ne kii jaamu yàlla te jaamu yàlla tëgg ko ci xam-xam duñ ko nangu moom la wax fi moom la wax fi habaan mansura jaamu yàlla gi ngay def te tëggoo ko ci xam-xam habaan mansuran la ngelaw lu ñu jëri pënd buñ jëli ci ngelaw day naaw rek dem is kullu aamilin bila ilmin yura fa saayuhu mislu habain nusira wa man hawa ilman wa laysa yamalu bihi fa innahu ximaarun yaxmilu naka noonu kiy jaamu yàlla te amul xam-xam tenewul lu bari ki am xam-xam ba noppi jaamuwut yàlla kon li am solo mooy nga boole ñaar yi sàkku xam-xamu diine ba noppi di jaamu yàlla kuy waajal ëllëg noonu lay def waaw bu ko defee bu ñu bëggee tënk daal mooy mbokk yi mooy suñ dund gi dund gu jeex la waaye am na ca kanam dund goo xam ne du jeex dund googu du jeex nag fii lañ koy waajale fii lañ koy waajale waajal gi mooy fexe ba tege ci yoon wi nga xam ne moom la yàlla moom nañu yàlla rëddal te yoon wa leer na ndax ndax yónni na fi yonante bu ñu ko jàngal boroom xam-xam yaa ngi fi di ñu teete bind nañ ay téer yi ñu war a jàng diine ji te ñuy jàngale ñu ngi fi di jàngale kon li ci des mooy tegu ci yoon wi te ba xam bépp bu am njëriñ bu lay jàppale ci sa diine nga am ko ba noppi jëfandikoo ko boole ci yéenu ju sell kon mbokk yi waxtu bi xat na loolu moo tax macha allah ñu. tënk foofu rek suñuy wax donte liñ waajaloon des na lu bari waaye wax ji daal mu gudd mu gàtt fii moom ñun ñun soxunu fi am na beneen dund bu ne ci kanam dund googa dund la gudul jeex fii lañ koy waajale la Sëñ Tuubaa waxoon ne fii biti réew la daal ña nekk biti réew ñëpp daal lu ñu liggéey yóbbante fii ña fa nekk nag topp koom ma bañ a yóbbante fii dara buñ ñëwee bi ñu fekk dara assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëñ Mbacke ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne indil nga ñu ko jàpp naa ni ñi fi teew kenn ku ne jël na ab bind bees tàq ci tem bi nga xam ne moom la doon waxtaane te mooy al istihdaad lil rahil mooy waajal dee da ngay tënk nga koy ci ay tomb yu ama am solo ginnaaw waxtu wi xat na buñ ci waxee tuuti rek mu doy sëkk njëkk nañoo fàttali ne li nga xam ne moo tàqale dund ak li nekk ci ginnaaw dund mooy faatu mooy dee gi nga xam ne moom la doon waxtaane mu xamal yit ne waajal dee dëgg dëgg dëgg buñ ko waxee lañ ci jublu mooy waajal la nekk ci ginnaaw dee ndax faatu moom te mooy dee du jaas boo waajee dina ñëw boo waajul dina ñëw kon waajal la nekk ca ginnaaw dee mooy wàccaay wi dëgg dëgg dëgg mu xamal ne it ne xalaa kulli xaalin nit mënta pexey nit àggul ci mu mën a fànq dee pexe doomu aadama àggul foofu ndax suñu boroom moo ne bakkan bu mus dund rek danga mus dee te wax ne ci biir alxuraan ni walaw kuntum fi burujin musayada aynama takunu yudrikum mawt wala kuntum fi burujin musayada fu ngeen mën di nekk rek dee dana leen fa fekk donte da ngeen nekkoon ci ay néeg yoo xam ni ay pale la sëriñ Mbàkke it xamal nañu ne it ne sëriñ tubaab daan na ko misaal ci ay misaal yoo xam ne yu neex a dégg la te neex a jàpp te dafa misaale woon àdduna mii nga xam ne moom lañ nekk te fi lañ war a wàccee fi lañ war a waaje ngir ëllëg da ko daan misaale ne àdduna mooy bitim réew bitim réew nag niñ ko xamee boo fa nekkee loo yóbbantewul te dëkk ba nga jóge boo demee da ko fekk waaye loo fa yóbbante it boo fa demee da nga ko fekk benn moo xam lu bon la moo xam lu baax loo fa yóbbante da nga ko fekk waaye moom la misaale àdduna bi it ne lépp loo def ci àdduna boo faatoo da ko da ko gis moo xam lu bon la moo xam lu baax la mu ne it ne wàccaayu dee wër tàmbalee ci jamono bi nit ki nekkee mag nga xam ne ñu bëree bëri wax na ko dañoo jàpp ni xale wërute faatu waaye nit ki buñ ko toggee jëf rek commencé ko bindal ay bàkkaar boole ko jaari balaa balaa kii di bind lu baaxam kii di bind lu ñaawam rek foofu la war a tàmbalee waajal dee muy ëllëg foofu la foofu la ko war a tàmbalee mu leeral yit ne li ñu xamal ni wàccaay wi bu am solo la am na suñu ay maami maam yu bëree bëri yoo xam ni dem nañ bu yàgg te ña nga fa dañu xaar te ña nga fa dañu xaar te ñooñu ñoo dund ak ñoom fii nii ñooñu nag war nañoo di leen fàttaliku rek war naa tax ñu waaj dee ñooñu nag yàlla bu ñu gaaw a fekk wax na it ci mettitu dee ak li ci nekk ndax metti tuddee àgg na ci ne am na benn yonente boo xam ni ba malaykal mawti bëggoon ñëwee ci moom ngir bëgg koo faat da ko dóor kon loolu doy na sëkk ne dee lu méttee métti la te yonente boobu ci ulul hasmi la bokkoon ci góor yàlla yu mag yi bokk na ci li nga xam ne moom la waaj moom la waaje ngir dee ngir ëllëg it bokk na ci li mu ñu li mu ñu fàttaliku mooy ñu moytu bàkkaar mooy ñu moytu bàkkaar te bañ koo xeeb bañ a xeeb bàkkaar ndax bàkkaar yu bari bu yàggee mooy muur ab xol te xol bi bu muuroo lu baax dootul yombati nit ki kon bokk na ci liy tax buñ bëggee wàccaayu dee wàcc ko ca dëgg-dëgg mooy ñu moytoo def bàkkaar waxuma yu mag waxul sax yu mag yu mag yi moom waaye yu ndawee ndaw yi sax ñu moytu ko bokk na it ci yi nga xam ni fàttali nañu ko ñu war koo moytu mooy fexe ba li ñuy lekk lew fexe ba suñu wërsëg lew ndax nit ki Sëriñ Tuubaa daan wax ne bu defee lu bu lekkee lu baax su ko neexee dana def lu bon su ko neexee dana def lu baax su ko naqaree dana def lu baax waaye bu fekkee dafa lekk lu bon nag su ko neexee dana def lu bon su ko naqaree dana def lu bon te daan na wax ni maanaam laa yanfawul ilmu wala al ibaada bi akli lil xaraami hinda saada nee na xam-xam ak jaamu yàlla mënul am njëriñ mukk li fi ak nit ki mi ngi lekk lu araam fàttale nañu it ndénkaanam Sëriñ tubaab bu am solo nga xam ne da ko misaale woon ci àdduna Sëriñ Tuubaa dana woon àdduna ñett la mu ne lu mat a def ak lu mëtul a def ak lu ëpp a def mu ne li mat a def mooy jaamu yàlla daray jëriñ àdduna ak alaaxira li mëtula def nag mooy sànq waxtu du la jëriñ àdduna du la jëriñ alaaxira mu ne li ëpp def nag mooy mooy yàlla dalay lor àdduna di la lor alaaxira loolu rek jàpp naa ne buñ ci sukkandikoo doy doy na sëkk ngir am wàccaayu dee mu mujjee ko nag bu ama am solo te mooy xam-xam ndax lii mu wax nii lépp mënta jariñ li fi yëg ci ay jëf li fi yëg nit ki tegu ko ci xam-xam moo xam wërsëg wi moo xam bàkkaar yi ndax nit ki bu jàngut du mën a xàmmee li baax ak lu bon bu jàngut du mën a xàmmee wërsëg li ci baax ak li ci bon ni mu war a dundee ci àdduna yi li baax ak libon nit bu jàngu ko mën a xàmmee ndax Sëñ Tuubaa daan wax naan na ngeen jiital ak xam ci jëf lu taxalluman ala xamal loolu mënees na ko tënk ci tom bi nga xam ne moom lañu doon gaaral tey di ko siyaara baax te di ko ñaanal di ñaan yàlla suñu borom mu dolli ko tawféex di leen fàttali it ne ñu ngi sant bu baax seen yi nga xam ne moom lañu àndaloon ci waxtaan wi te seen bi ci jiitu mooy MK TV ak mbooleem seen boo xam ne yaa ngi ko doon jàll direct wala yaa ngi koy tegaat rek waa daayiratu Muxaddamatul Xidma ñu ngi jëmee ci yow ak cant di leen fàttali it waxtaan wi nga xam ne moo war a am suba te daayiratu Muxaddamatul Xidma ni ñu xeetalee waxtaan yi dañ koy def ñett am yoo xam ni ay waxtaan la maanaam ay conférence comme bi ñu bii ñu doon def am ci biir waxtaan yoo xam ni ay fatawa la mooy laaj ak tontu am yoo xam ne nag ay darsu lañ ko tuddee muy ay bind ay leçon leson yooyu nag moom lañu ñu war a ñëw ak yéen suba yaakaar naa ne bu suba bi mooy juróom-benneelu bind moom ki ñuy àndal ci waxtaan woo mooy sëriñ alxaaji Buso sëriñ Abdou Xaadir Buso alxaaji Seexu thème bi muy waxtaan ak mbokk yi ginnaaw bi ñu jullee tàkkusaan ba noppi suba mooy mumaarasaat fil bayhi wa shira mamnuh maanaam lu ñu tere lu ñu interdit ci jaay ak jënd suba ci tàkkusaan ngi lay doon ñu ngi leen di fàttali fàttali it ne fatawa yooyu nga xam ne mooy laaj ak tontu yi li ñu doon li ñu doon wax léegi képp koo xam ne am nga laaj boobu bëgg laaj mën nga koo jaaree ci numéro yi 78 689 28 28 78 689 28 28 wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.